influence boobu bés bés dootu ko dax Baba Diaw mii bés moo xam bés. ndax moo am parce que doomi doomi bi la doomi Ndakaaru la ci dëkk bi la ligg fii la juddoo fii la màggee fii la yaroo double moteur mu war a bàyyi koo rëbës ak li wër rëbës poel si mu war a bàyyi koo Bargny Tëngéej Jalaaw Yeen Ngaparu Somone Géeraw ñëpp topp ci ginnaaw mais loolu bés drapeau Cheikh Matidiane Ba le futur maire de la Médina bii la bés boobu guerre la. Eh, guerre kaay. dafa nuyu maa ngi lay ziar. maa ngi sant bu baax. Quench double moteur. Quench double moteur. double moteur nga mi ngi doog am mi ngi doog am combat. parce que Quench doomu mool la. yàgg na mbaal. mën naa bëri te am na la yàqul boppam. te da fàttaliku biñ koy jàpp bi daal mi koy daan ñëpp dañ ñëwoon saa waay da koy nax daan ko. Double Moteur combat yi mbër yëpp ay faay la mais nag góorgóorlu ci combat bi nag mu tey xam ne am na mbër Quench aussi na xam ne moom it am na combat parce que Kewa am xeex dana feeñ combat bi du yomb de kenn du ci may dara sa morom. door mu daan. non non non accidentellement parce que ñoom ñaar duñu ay xeexkat duñu ay xeexkat gisuma ci seen xeex lu door mu daanu. mais bëri laa di gën a gis parce que Quench moom day bëre. waaw. mais nag doomu dàngu doomu dàngu du seeraan Quench muy ñëw noo ko préparé. dèjà mais bàyyi tooñ bàyyi paa beeg ñun. noo noo def. noo def. maa ngi fi. waaw. double moteur Quench noo ko waaw. combat bu la. ah combat bu neex la. combat bu neex lay doon de. waaw. favori favori amul foofu waaw. 50 50 la kay man de loolu laa gis waaw. bëgg naa la Baye taw feex. bul moteur Coen. bul moteur Coen amul favori amul favori ku ne nga daan ku daanu. ku ci ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk parce que ñu ay xeexkat bul moteur du xeex Coen du xeex kon ku njëkk nga am ndam waaw. amul kaay lépp jaam. duwul moteur. duwul moteur Coen lamb de ñoom ñaar ñëpp ay xale waaw. dina neex moom ndax ñëppay bëre. non man faraluma kenn amateur laay taxawee rek. waaw. mbër nuyu naa la. char naa la. Double Moteur la ñoom ñaar ñëpp ku daal sa morom daan la. juum daal daan waaw. làmb kay leer. li ma wax la léegi yow. ku daan baax na faraluma kenn waaw. Ndiéli Sène. ma doomu ndey Mbaye Guy gi papaam la xaritam la léppam la. wax dëgg Mbaye. double moteur Quench. combat la ah. mais ñu ngi ñaanal double yàlla may ko ndam. ñoom ñaar ku ci nekk lan mooy avantage am en tant que mbër. non ñoom ñaar ñëpp combat la lamb la comme rek. double daal ñu koy ñaanal ndam ñoom ñaar. jéey waaw lamb amateur la lamb ju neex la vraiment macha allah yàlla na ci yàlla def jàmm mu bokk ci lamb yi dàq ci année bi loolu la ñu ñaan yàlla te ñu ciy liggéey lu rëy nag allah bu njëwee fii xam ne wallaay liggéey rek a wóor. ñoom ñaar kan moo ci avantage. non dañuy xeex dañuy bëre mais ci xeex lay commencé mais ci bëre lay jeexee loolu ku ne xam na ko waaw.